atum 2014 voté woon nañu ab loi boo xam ne la ñu sa jublu woon mooy wàññi location bi waaye nag loolee mën nañu ko jàppare saafara bu jur jàngoro ndax location bi dafa gën a seere ci diiwaanu Ndakaaru ak pëccoxoo moo ci am amul kenn koo xam ne yaa ngi koy jéem a lijjanti te ñi nga xam ne ñoo moom seeni kër bu ñu la bëggee génne dañuy lay dañ lay wax ne la kër gi dañu koy defaraat wala dañ siy dëkk boo génnee ñu defaraat ko daal di koy luwee njëg goo xam ne njëg gu cher lay ñi nga xam ne ñooy propriétaires yi maanaam ñi moom seeni kër ñoo ngi rey nga xam ne ñooy locataires yi foofee tamit lu jëm ci location bi dafa yokk ba maara day yi te ci ndakaaru téeméer boo jëlee ñeen fukk ya ak ñett yëpp ay locataire la ñu yéen gi nee na ñi nga xam ne ñooy courtier yi ñoo ñooñee dañu leen di faral di tuumal na ñooy yokk location bi waaye nag courtier yi ñoom weddi nañu ba tëdd sa naaj wa nee nañu nañu leen ci génne seen yoon nekku ci Philippe Mbuub mi nga xam ne moo jiite collectif bi ëmb locataire yu Sénégal nee nag gars yi si boppam ñoo war a nag jóg mobiliser ngir nag jàkkaarloo ko ñi nga xam ne ñooy yokk bi ci anam boo xam ne teguñu ko ci yoon yéen a kaay gi délibération xëy dañu xibara naan ñu lu toll si junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom benn ci ay bâtiment yoo xam ne maanaam ngi waaj a daanu bi nee li nga xam ne moo koy waral nag bokk na ci du am yenn étude yoo xam ne danañu ko def ci construction bi nag li xam ne mooy matériel bi ñu tabaxee bëri na ci loo ne amutu qualité yéene kaay na am na ñoo xam ne la ñuy fondement ak la ñuy yëkkati comme yàlla ak yi yéene gi de la soleil xëy dañu càmbaral lan moo tax lu toll si junni ak ñeenti téeméeri bâtiment bëgg daanu yéene kaay gi di réew mi di quotidien bàyyi mbir moomee wax ci lu jëm ci wàllum politique nee na Pastef Ndakaaru gi nga xam ne ñoom dakkaloon nañu seen i activité ci biir coalition Yewwi Askan Wi commencé war nañ seen i activité yéen kaay gi di réew mi ko ci ci xëlim ak Assane Samb xëy na di leeral ak di faram lan moo tax coalition yi nga xam ne ñoo nekk ci opposition bi maanaam daal di fragile yéen kaay gi di Sud Quotidien xëy na ci coalition yi nga xam ne nag soo moytuwulee maanaam caaf xëm lambay ñaawa ndax nag bëri na ay nag réero yoo xam ne am na ci biir lool am na ñoo xam ne soo moytuwulee danañu fipp ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar ak ci biir coalition coalition Yewwi Askan Wi yéenekaay gi di Sud Quotidien nam ko tudde investiture de tous les dangers yéenekaay gi de la Témoin xëy ci élection locale yi a coalition yi nga xam ne nag ñoo ngi jëm ci investiture yi waaye nag soo muy tuulee coalition Benno Bokk Yaakaar ak Yewwi Askan Wi ak Wàllu Sénégal maanaam nag si xar tas taseeras boo muy tuulee maanaam si la jëma la nga xam xamante ni moo ko waral nag gars yi daal kenn ku nekk am na ay personel personnelle yéenekaay gi di Vox Populi nee na coalition Yewwi Askan Wi ca diiwaanu Thiès foofee nag maanaam bu rëy moo fa am diggante Moussa Tine ak docteur Babacar Diop soo muy tuulee coalition Yewwi Askan Wi sa diwaanu Thiès foofee tamit toj la def yéen a kaay gi délibération nee na la pression monte Racine Sy sa diwaanu Podor moom nag dafay sàkku ci ki xam ne mooy Aïssata Tall Sall maanaam mu daal di retiré woo bañ a nekk candidat yéen a kaay gi de Le Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu ay jamonoy 2009 parti socialiste ñoom nag ñoo nekkoon patron Dakar maanaam nag ngar dajoo woon Dakar parti socialiste amoon na doole lool lool lool ci diwaanu Dakar waaye nag léegi daal parti socialiste socialiste maanaam daal porteur doole de l'APR maanaam koo xamante ni daal dafay ŋàbbal APR ndox maanaam topp ci ginnaawam daal di wayang wayang yi wala di lambar-lambar yi yéen a kaay gii di las xëy di ñu xibaar naan ñu wàllu Sénégal coalition boobu bu tasee tasar bu mu bett kenn loolu na ko Sénégal yi xam wàllu Sénégal maanaam bu tasee bu mu leen bett yéen a kaay gi ne nag viris bi ci boppam bi nga xam ne moo duggoon nag wi askan wi moo dugg solu jamono ji coalition wàllu Sénégal yéen a gi de la turbina nee na coalition wàllu Sénégal jamono ji nag si tas la jëm ndax ki nga xamante ni mooy Pape Diop nee ma bokk gis-gis Pape Diop benn tànkam rek moo nekk ci wàllu Sénégal beneen tànk ba ma nga ca biti yéen kaay gi di réew mi quotidien bàyyi mbirum politique mi wax ci douane bi nga xam ne teg na loxo ca diwaanu Sine Saloum ay faux médicaments yoo xam ne bi ñu ko xëymaa toll na si téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ci ay millions ak lu toll ci quatre cent cinquante kilos yu yàmba yéen kaay gi di ñu xëy fekk fa avocat yi Aïda Diallo yi ñoom nag nee nañu Aïda Diallo dañu ko naroon a rey tentative d'assassinat loolu nag tax ñu sàkku li nga xam ne maanaam moo jëm nag yoon def lii liggéeyam maître Khoureychi Ba moom nag nee daal dafa am ab projet d'assassinat boo xam ne moom la ñu bëggoon nag la ki nga xam ne mooy Aïda Diallo avocat bii di maître Bamba Cissé nee na nag li nga xam ni ñooñu def ñu ko daal dugg këram acte criminel la yéene kaay gi di Vox Populi nee na Aïda Diallo ñaari tentative d'assassinat la ñu ko lalaloon yéene kaay gi di Stades xëy nag di ñu xibaar naan ñu nag fanweeri joueur yi nga xamante ni ñoom la ñu tànn ci lu jëm ci ballon d'or bi te Edouard Mendy bokku sa loole nag maanaam xel mënu koo nangu te nag jamono ci tax na